mbokk internautes yi dal leen nag jàmm scandale boo xamante ni dañ ko daal di constaté ca biir banque islamique du Sénégal di BIS mu nekk nag scénario boo xamante ni nag dañu wax ne rek foofee nag ñaari agent ñoo doon nag sàcc xaalisu eh, ci nag ay compte yu euh, client foofee ca banque islamique du Sénégal mu nekk ab scénario boo xam ne dañu ko réglé nag euh, ci mode opératoire boo xamante ni lépp dañu ko daal di xool bu Bounama Sène moo nekk responsable des opérations bu agence euh, banque islamique que vous BDN ak Babacar Seck chargé des opérations bu banque islamique bu saint de ñoo doon nag pilier Manam nag di toj bopp clients et di nag sàcc seen xaalis ci ay compte client jaarale ko nag ci ay faux relevé bancaire un montant provisoire bi nga xamante ne jot nañ ko sàcc ci millions de francs CFA bu ñu et ci le quotidien Libération loolee nag ñu ngi ko doon jaarale ñoom ñii ci ay faux relevé de compte yoo xam ne ko Libération xam ne ne Babacar koy en même temps que cliente bi di Ndeye Ngone Dime ak vigile bu banque bi di Younous Dahaba ñom ñaar ñëpp nak danaka ñu cité len danaka ñu cité len ci ay somme yo xamne dañ ko sacc ay compte client Bounama Senghor responsable des opérations de l'agence BIS euh, di banque islamique bu VDN daal di nak jamono ji nak ab mandat d'arrêt lañ ko dal di nak euh, daaj agent yi nak nga xam ñom lañuy la ñuy tuumaal euh, nak yu compte yu bëri nak lañu doon nak euh, jéem di sàcc ñoom ñu sax jotoon nañ ci sàcc yenn yi ndax ay virement frauduleux yoo xam ne dañ ko doon def eh, ci nag compte ki nga xamante ni mooy Ndeye Dimi ak itam consentement wu kookee nee ni nag moom mii di Ndeye nag bokkoon na ci deal bi ndax nag dañu ko doon nag daal di nax ba am consentement wam mu nekk ab cliente boo xam ne ci banque boobu la nekk ay virement yoo xam ne dañu ko def ci compte du vigile bi eh, di Dahaba ensuite ñu defoon ay retrait yoo xamante ni nag eh, da tax ñu jël ab cash jox bu naam seen Senghor ak tax nag ci ay commission yoo xamante ni nag euh, moom la ñu daal di nag def mu nekk loo xamante ni di indi benn éclatement wu banque islamique yu Sénégal wala bokk yu bëri nag ci ay clients yoo xamante ni boo moytu dañ fa jaaree nag tëj fa seen compte bi di seen compte yi fa daal di nekk ndax nag lii dina wundu rek ni nag faaw rek ñu daal di nag jooyante xool itam naka la ñuy daal di nag xoole li nga xamante ni moom mooy seen agent ak accès yi ñu am